waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñi fi teew yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ah, di nuyu bureau bi mais particulièrement di nuyu suñu mbokk journalistes yi nga xamante ne nii teew nañ fi ah, di rafetlu tamit ndaje ndaje bi fi am nii ndax y a deux ans trois ans ci ginnaaw wala cinq ans ci ginnaaw boo waxoon réew mi de ndaje bu mel nii mun naa am ay mbër yoo xam ne tolluñ ci benn catégorie bi ñu benn écurie mun a bokk benn jotaay ne dañuy xeexandoo benn bëgg-bëgg dañ leex amul boo waxee ni ñi fan ngeen teg ne amul ñu ne ay dof lañ tey ñi ngi sant yàlla xëy na esprit ñi ngi avancé ah avant dara di tamit ñu koy xamal suñu bopp di ko xamal suñuy mbokku mbër suñuy rakk yi nga xamante ne dañoo toog ci ginnaaw doy looñu yaakaar suñu xalaat ba lu ñu wax ñu ne ñu lu ngeen wax ànd nañ si lu ngeen def ànd nañ si Euh, léegi li ñuy njëkk a leeral ci bopp journaliste yi leeral ko ci bopp Sénégal yëpp mooy wootewuñ wuñ fi ndaje pour kalan ak kenn wootewuñ wuñ fi ndaje pour xeex ak kenn wala pour diir kenn ay bët wala laspeer naan pour yow la c'est juste dañoo bokk ci làmb nekk ay mbëri ndaw am lu fi nekk jiite ñu ñu koy wax association boo xam ne nee nañ moo tënk lépp luy mbër te nekk Sénégal yaakaar naa suñu mag moo ko jiite ñu koy nuyaa passage muy Gris Bordeaux jiite benn association boo xam ne mooy association nationale ñu amaat fi leneen lu tudd CNG. lamb ji yaakaar naa bu fekkee dix mille licenciés la bu ñuy compter VIP yi matuñu cinquante VIP def nañ ci lamb dix ans yoo xamante ne li ñuy bégalee Balla Gaye Eumeu Sène la Balla Gaye Modou Lo Balla lii la ñuy bégalee amateur yi du rafle mbër VIP dañoo rafle ay VIP. léegi bu làmb tollee foofu kon ñu bëgg a jël licence yi léegi bu nekkee 9000 licences yi moo ci des lépp mbëri ndaw la di dund coono yu métti ci làmb àdduna yëpp teg ci bët monde làmb yëpp xam ko mais nag ñu ànd ak ngor mën a muñ toog fi ñu toog parce que dañoo am ay ñoo xam ne dañoo ñëw ngànk làmb ne ñoo ñu jiite ñu am yaakaar ne ñoo ñu jaar nañ ñun fi ñu jaar tolloon nañ ñun fi ñu toll kon xam nañ coono gi fi ne xëy na bu ñëwee ba yegg si foofu noonu. non aajotul ñun ñuy ubbi suñu làmmiñ lépp lu ñu métti dinañ ñu ko waxal mais ñu gis ne mondu làmb coono yi ci gën a métti mbër mu ndaw a koy dund. làmb bokk ci li ñu gën a xeeb ci Sénégal te ñu baal ma sport Sénégal bu weesoo football li làmb indil Sénégal ci trophée amul sport bu koy indil il faut ñu arrêté ñu bañ ñu nax. équipe nationale Sénégal mu ngi nii bu doon football tey lii du am duñ fi dajaloo xam nañ fan la ñuy yem rate nañ penalty yi ngay dégg wala oo oh, kii moo waroon parté rek ñu ñibbisiwaat xaar déwén. mais équipe nationale bëre bi mosuñu ko yóbbu te gàdduwuñ trophée bi ñoo ñoo koy indi force équipe nationale yëpp yi nekk Sénégal sport yëpp bu ñuy tukki pale lañ leen di joxe drapeau. pale président moo la ko jox équipe nationale yëpp du taekwondo du karaté du lu mu mën a doon làmb rek moo fi nekk équipe nationale boo xam ne bu ñuy bu ñuy tukki duñ gis président bu ñibbisee boo maris lañ leen di wàccee ku nekk xool foo jëm. ñii ñibbi Fatick ñibbi Fatick ñii ñibbi feneen ñibbi feneen parce que mbër lañ tegul fenn mais ñun dañ ko nangu woon départ bi. imaginez dëkk ci benn gox. dëkk ci benn gox yow sama mbokk fu muy jóge ci àdduna tetal ko yomb na danga naan wàcceel boo wàccee Pikine laajteel kër ñoom ondu la fuu rek. boo wàccee Pikine foo mën a wàcc Pikine ñu naan ñu ne laajteel kër ñoom ondu la fuu mooy teetal bi léegi kook ngeen bu ko jàppee benn nit koo xam ne tekkiwul dara ci làmb benn nit koo xam ne lii. ba pare làmb nekk jëlukaayu exemple ci état bi état buy jël exemple ci làmb lu koy jël mooy sanction bu muy teg. danaa naa naa commencé ci mbëri ñoo ëpp doole dañ naan nemm bu ko defee koo jàll ci moom du wax étudiants yi ñu ci mat 80 kilo dañ leen di compter mais boo téye seen bourse une semaine ñu taal bii si ci dëkk bi yëpp lamb 10 000 licenciés nga xëy mu neex la nga ne na ñëpp dem chômage bu kenn liggéey tëj naa ko bu ñu ne ba kañ nga ne ba jusqu'à nouvel ordre mooy xamaguma na ñëpp dem toog bu kenn liggéey lijjantiwu ma nag fu ngeen di jëlee dépasse wala nu ngeen def ba lekk loolu sama yoon nekk si leen toog rek ci làmb rek la temps bi ngeen toog liggéeyul yëpp ñi leen yilif est ce que xam nañ nan ngeen di def ba lekk est ce que xam nañ na ngeen def ba naan mais c'est parce que jàpp nañ ne lii ay xar la lu ñu xiif xiif xiif xiif lu ñu mer di mbëkk poto yeeg lépp boo ubbee yor paanu ripaas dañuy dawaat ñëw sëgg noonu la ñu jàppee moo tax nu leen neex lañ koy tëjee ñun nag nekkuñu fii naan ay làmb waruñu ko tëj wala waruñu ko li làmb war nañ ko tëj ndax ci réew mi la bokk bu amee lu xew ci réew mi loo xamante ne nii ay loraange mu ngi ciy am bu ñu jël ay décision làmb nekk ci réew mi tey dajale d'accord nañ ñu tëj ko mais est-ce que nii ñu tëjee làmb nii lañ ko war a tëjee ci loolu lañ nekk. mais lan moo tax tamit làmb nekk jëlukaay exemple ba lépp lu ñuy def làmb la ñuy njëkk a tëj. te moom kese lañ tëj ñu tëj làmb dimanche lundi coupe de Sénégal ñu koy jouer ñu tëj làmb dimanche man dama waroon bëri ci dimanche bi heure bi may takk ngemb la ñu doog xam ne làmb ju do am. après garaawul lépp loo defoon sa làmb wala lépp loo ci financé woon wala lépp loo ci kii après amul problème heure bu ñu ko centré tijji dañ koy tijji ne jël leen dadi mbër mu ci nekk dem débrouiller ji noo kiyee noo ko préparé. te loolu yëpp tey maanaam am na ñu ñu gënoon positionné wu pour taxaw am àqal yeelefu mbër mu ndaw mun ñu koo waxal parce que dañoo jaar ci mbër mu ndaw ma tey suñu borom dimbale leen. tooguñu fii nag pour ŋàññi leen tooguñu fii pour di leen jaxaseek àdduna parce que ñun dañoo ñaan yàlla mel ne ñoom dañoo ñaan yàlla yegg fi ñu yegg mais ñaan nañ yàlla it bu ñu yeggee fi ñu yegg suñuy rakk yi ñëw di toll si fii ñu taxaw leen ba ñu xam ne ñun jaar nañ ñoom fi ñu jaar mais tooguñu fii pour di leen jaxaseeg àdduna mais tey bu fekkee dañoo toog réew mi di tàkk ay bakkan di daanu lu ne di xew benn nit toog bureau woote France 24 ne Sénégal amul mars ay mbër ñoo toog gëj a bëree di taal dëkk bi. wax li muy wax France 24 international àdduna bi yëpp di ko seetaan mu ne mbëri ñooy taal Sénégal. ok ñu toog di muñ ne am nañ ay njiit dinañ ñu ko waxal njiit yooyu toog ministre bi ne leen kaa leen sama bureau ñu ne nooy dañ faa demoon ministre bi moo ñu war a baalu kan moo mës a dégg ci àdduna kaay ma baalu la. ci àdduna loolu am na saaga la ndey nga war war laa baalu ne la kaay sama kër dama lay baalu te man man bañu ma ko ma wax kaay ma baalu la de mais bu ma ñëwee nga wax ak man man. comme maa ñëw ci man comme président association jeune lutteur ma ñëw nga ne ma non li ma waxoon damaa juum ma ne la d'accord naa ci. mais amul problème man woote loowu ma la sax France 24 muy international mais comme ñi nga ko waxaloon ñëpp ñuy ay mbër dañuy seetaan Bantamba du gàttal 2S direct rek ne mbër yi man damaa juumoon nii. mais man du maay ñëw sa bureau nga yëkkati lii nga may jox jox ma ma génn ci biti naan mbëri yi na ñëpp arrêté vidéo yi def ministre bi daa juumoon et après benn mbër bu ndaw. toog gis injustice si làmb wax ko ñu ne ko dootoo bëre 2017 ba tey làmb yëpp entraîné ñoo ko kon en 2017 la gëj a bëre ndax lan am lu xew ci làmb mu génn wax ko làmb réñoo ko ne ko doo bëre mais ñun bëri xam la moo tam tax ñu wax ku ci nekk da nga naan man équipe bi ma nekk daa am VIP bu fa nekk te sama grand la des fois xam nga mu jox ma ay équipement des fois mu laal ma ay dàll wala lii wala ay laa munoo génn wax pourtant tey association boobu nu ñuy tudd noonu barki démb ki doon def vidéo magam bu mu bokkal ndey ak baay mooy président bi mu taxaw na la ñoom ñëpp amaluñ làmb njëriñ parce que ku ci nekk sa personnalité personnelle ngay sàmm mais sàmmoo personnalité lem moom Maodo ak Gris Bordeaux ñoo bokk ndey ak baay Maodo moo ko wax ci làmb ñam teg ci na leen ñoom ñiy ànd yëpp teg ci na la ñoom ñi ànd yëpp ci VIP bi kenn gëmu ci sa morom moom mi ko wax ak ki ko jiite ñoo bokk ndey ak dañuy déglu tamit suñu mbokk journalistes yi ñu naan est-ce que seen association bi ngeen créé am na njëriñ est-ce que ngeen demoon topp seeni i mag topp seen i ginnaaw nekkul woon mooy liy gën a arranger làmb est-ce que loolu nekkul moo gën ci làmb non moo gën ci làmb dëgg la mais est-ce que suñuy mag taxaw nañ tànk yoo xam ne seen i rakk war nañoo mën a ñëw topp leen. man man en personne association jeune leader bu ma gisoon léegi benn mbër bu ndaw génn def sorti naan association jeune leader nii ak nii ak nii ak nii te nee nañ mobile mooy président dinaa wut numéro ba am ko jël ko woo ko waa rakk gayam nu mu demee nii ba ma toog di dégg gis ngay def nii ak nii ak jéem a xool lan moo la naqari bu fekkee association mën na laa convaincre ñu jéem laa indi suñu biir ndax amuñu benn intérêt pour ñuy dépassé kii di jaar nii kii di jaar nii mais a ngi gis Kona mi ngi def sorti ñaata ñu ngi gis Onde le Fou mi ñu gis mobile mi ngi def sorti di kaasal mbëri lañ si am toog di jot ay menaces ne dinañ ñu tëj président association bee taxaw nee na dina tëj Onde le dina tëj mobile 2 dina tëj Kona mais ragaluñ loolu parce que kaso boobu du wéet man rek ci benn chambre mais est-ce ce que loolu mooy est-ce ñoom loolu mooy seen réaction ak seen i mus naa ko wax ma ne fii mbëri mag yi fi nekk yëpp nañu def cinq ans ñu arrière ci ginnaaw xam ne mbër moo bëre ba def leen lu ñu doon ñoom dañoo war a bëri ci làmb ba def ci nit lu mu doon. ñu jaale suñu papa Mbaye Gueye moo bëree ba def Moustapha Gueye li mu doon Moustapha Gueye bëree ba def Gris Bordeaux li mu doon Père Balla Gaye moo bëree ba def Balla Gaye 2 li mu doon Lac de Guiers 1 bëree ba def Lac de Guiers li mu doon il faut ñu bañ a naxante ku ci nekk mbërë bëre ba génnee la mais ñoom kan lañ bëre ba génnee leen te ñoom ñi leen génnee ñu leen génnee fayeekuñ li ñii di fayeeku amuñu kot bi ñuy am demuñu fii ñi ñii di dem tey làmba ngi def lu nekk làmba ngi fekk mobile ci baraag yóbbu ko ci beneen niveau lamba ngi fekk mobile grand di ko yóbbu Amérique ak feneen ak feneen kon génnee mbër tey la gën a war a mën a gën a yomb mais tey la génne mbër gën a jafe. liñ séq ak mbër mu ndaw mooy aloo foo nekk dañuy dem dîner suba yow it nga am sa benn matadi gu mat sa gàddu sa saak xaabar xaabar yi ñëw ñu teg la ci kanam oto bu ñu demee dîner nga nekk sa bi bu ñu yeggee gaal la ñu jox la sa macaroni bi nga lekk ba suur ñu ne la ñuy bil nga dem ñibbi suba danga nga leen di woo 17 heures o entraînement mu ne la damaa am rendez-vous yow it nga noo salaam toog ne grand bi demul mooy dem entraînement am moom amul envie dem nga mujj toog des fois sax nga woo mu ne waaye ñëwal gaal ñu teg caa tey dama fatigué nga ñëw nga nangu ko ñëw toog. yow mbir mu ndaw bi nga nangu ko ñëw toog mais nag yooyu yëpp boo gisee ñu koy wax dañ koy fàttali wante ñun suñu biir ñun ñëpp parce que ay mbëri ndaw lañ en nekk ak ay mbëri mag. am fu ñu jaar fu xaw a bëri ci làmb daj ci ay coono tey bu làmb demee ba mbër mu ndaw day jël cinquante mille francs jox ko promoteur pour mu dugal ko ci programme bi dugal ko ci programme am fay mbër mi cent mille francs yëkkati trois bologu bee bi bolog bu nekk deux cent mille jox ko muy six cent mille mi indil ko ko versé mu jox ko muy avance am problème te mbër yu mag yi xam na mbër yu ndaw loolu la ñuy daj. mbëri mag yi toog ci làmb xam ne mbëri ndaw yi noonu la ñuy daj pour bëre mbër bu ndaw mooy jël xaalisam fay ko pour bëre doo toog ba dégg ñu wax ko parce que sax xam la moo man ngaa ñu ma mais damaa jàpp ne ñoom fi ñu foofu la ñuy jàmbat xam nga boo tollee ci ay millions ay millions rek ngay jàmbat non say morom ñi ngi say rakk ñi ngi ci làmb ji am problème mu francs bu ñu reeree nga ñëw bu làmb demee ba mbër day dem ci ménager am ne ko grand damaa war a bëre mu ne ko lijjanti 100000 ma boole la diw mu tëgg la problème bu làmb demee ba mbër yeeg promoteurs yi am problème ménageurs yi bàyyi mbër yi dem topp promoteurs yi problème am na te yow ci xaalisu mbër mi nga mën a lekk mënoo loo topp topp topp topp promoteur bi bu tëggul sa mbër doo lekk pour cent rek nga mën a lekk maam problème ak promoteur nga fal ci promoteur bi problème am na ñun dafa am mbëri ndaw yi bu dul site internet yi du ñu wax émission làmb yu mag yi sax mbëri ndaw yi duñ fa toog parce que jàpp nañ na seen xam-xam yeegu fa seen xam-xam yeggul ci ñu toog Bantamba war a développé wala ñu toog jongante war a développé jàpp nañ loolu. lan moo tax làmb fi ñuy nasee ka noccee chaque làmb chaque année bu bees règlement bu bees ñëw te ñuy nasee ka noccee mbër du fa toog. moo tax làmb lu problème bi rëy rëy rëy buñ ne dañuy woo waa ñu gis ñeenti mbër yu mag ñooy dem toog ne dañuy waxal dix mille licenciés léegi nag gars yi dañuy jël affaire bi teg ko ci association bi da ngeen ko taxawal pour critiquer ñi wala léeg lii da ngeen waroon kii. réew mi gis nga wute gis-gis moo waral marchandise di teel a jar fii xuloo amu fi jotewuñ ak kenn mais faaw nit ñi xam ne dugg restaurant commande yaasa taxul maafe bon yaasa mooy sa palaa Ousmane Sonko ak Macky Sall loo wax ñu ne réew mi lañ bëgg a defar lu tax ànduñu bokkuñu ay gis-gis ñu ne ñi fi nekk bokkuñu ay gis-gis dañoo am ay principe di gis ay coono yu métti mbër mu ndaw am combat une semaine du ñëw entraînement bu ñëw écrit ñu koy teg ay daan ak ay lii ndeke ay yor di ko jaay moo ko ñëw. bëri na si mbëri ndaw yi fii yu fi toog yoo xam ne am na ñoo xam ne seen mu ci promoteur yi dañuy toog xaar xaar promoteur bi jékki-jékki na la sa journée ak diw dina baax naa la dugal ci sama journée bi nga jël sa xaalis di ko jëmbat. te ñu li ñuy wax nii nii nii barke Seydina Mohamed VIP yi ñooñu ko gën a maîtriser imagineel mbër mu mag ñu fay la cent vingt millions cent trente millions sa écrit yow sël nga bëri ci. te mu neex la ne cent vingt bu ma neexee ma ne promoteur bi dagg doo ko def léegi yow 120 millions yi mun nga cee jël 10 millions jënd ci ay boolu gu bee mais 10 millions yi 5 millions yi ngay 3 boo yi ngay dugal ñoo gën a doon booloo mais da ngay jël 120 millions yëpp boole def sa poche ànd ak booy di leen yéegloo ay din ba ñu tooy koo ci gëj a gis ne ko fan yii da nga yàmbar de foo nekkoon. jeex na ñoom bu ñu ànd ak yow yéeg din ba kii bu ñëwee toog buntu gaale gaa gaale génnee bi doon ndox yi booy naan fëggatu ku nekk jël sa yoonu kër nga dugg lekk lu baax naan say garab yi baax te di nelaw. booy ñëw gaale ñëw ci meeru meer meer bi yor jaay woo ko ci tali bi ay meer démb 200 rek laa la ameel waa léegi jox ma 3 mbuus ba suba nii ak nii di ko jéem a koloo koloo nu ñuy reeree coono yooyu yëpp ñu nekkee koog mbëri ndaw yi ñu ne kenn du ko wax. làmb am ba jour si ñu toog ñu ne annulé nañ ko mujjul fenn ci ay mbër yoo xam ne mën nañ cent vingt kilos pour ñu taal pour ñu taal ndakaaru comme bonjour mais am yar am discipline li ñëpp mën mën nañ ko li étudiants yi di def mën nañ ko ndax ñoo leen ëpp kàttanu def ko ñoo leen gën a sawar te lii bu arrêté wul ci loolu lañ jëm parce que tamit ñun mënoo ñoo teree liggéey ne ñu réew mi dafa am lu fi nekk feebar buy bañ dajaloo ñu toog liggéeyuñ ngay toog di liggéey di fayeeku di yóbbul sa waa kër ñun amuñu lu ñu yóbbul suñu waa kër te sàcc la ñuy bañ chaque jour soirée yi di fees dell coupe du Sénégal di daw di fees dell léegi dama bëgg a xam ba xam corona amateuru làmb la wala lan la bu fekkee corona mooy amateuru làmb ñu wax ñu. Hmm? feebar bi bu dee mbooloo lay bañ Macky Sall heure buy dem pale day jaar Sandaga li nekk Sandaga xaru xajul arène nationale. kon léegi réew mi jeex rond-point Kër Massar gi li fi nekk boo ko dugalee Ibamar mu fees bul ñëw marché Grand Yoff wala Tilène léegi lan mooy problème bi ah. Amadou Bari tey dafa max ok kon corona mooy amateuru làmb léegi nag CNG lañ bugg ñëw def ci moom taxaw seetlu parce ñun dañ si bokk Sénégal y a dix mille licenciés. bu dee mbër yi compétir arène kese. lambu Sénégal satisfaire na Sénégal mu nekk kañ la ñuy arrêté toog per diw dafa feebar gaan na ci gaa yi jàpp nii ak nii ak nii ak parce que ñun amuñu yaru toog di ŋàññ wala di critiquer wala di def ay lii ñun amuñu yar yooyu noonu ndox nag baaxoowul tàng mais taal bañ ko teg moo soppi jikkoom. parce que nii ñu ñuy waxee nii ñun Sénégal xamee woon ñu nii ku ñu yàgg a dégg ci internet ñuy wax xam ne ñun xamuñu wax muy metti wala wax muy tàng parce que bokkuñu ci kii boobu noonu mais li ñu dal nii ñi ñu ko teg dalu leen ki tere agogo mi liggéey ki tere mi liggéey ki leen tere liggéey yéen ñi mi ngi liggéey ñun ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk ñii Grand Yoff lañ dëkk ñii Pikine ku ci nekk xam nga làmb lu mu def sa koñ xam ngeen ci boo yoo xam ne boo leen gisoon un mois da ngeen ko doon féeteew mu dem na kaso rek nga ko doon jàppee làmba leen fi téye tey ku ci takkul ngeem bu xam nga lu ko bàyyi loolu mu doon dund xas na di ànd ak Baye Baye Ma Ndiaye di ànd ak Baye Ma Ndiaye ba ñëpp xam ko ci Baye Ma Ndiaye mu xam ne moom mënatul def lu fës ndax dañ naan booy buy ànd ak Baye mu mujj bàyyi lépp kon làmb li muy satisfaire réew mi dafa bari bëri na fi tey ñoo xam ne ñi ngi wax ñu leen di déglu bu du woon làmb heure bii puus-puus la ñu yor di puus jànguñu maag ñoom a yem ñu amuñu dara kàttan rek lañ am yanu la ñuy mën a def dañuy yanu ji ci marché yi la ñuy nekk di yan war a dara li làmb jëriñ réew mi dafa bari nañ ñu respecté te nag ñëwuñu fii pour wax rek bàyyi mu seet de dañuy wax pour ñu wutal ñu solution wutaluñ ñu solution nañ wut sécurité bu doy te xam ne ci tali bi lañ jëm si. il faut mu leer nañ ñu wutal solution parce que dañoo yor famille dañoo yor njaboot di leen dundal te àdduna du neex ba ñu jël suñu doole jii ne dañ koy dundee ci ñaq jàmbur na du neex ba ñu jël suñu doole ne dañuy nangu jëfu jàmbur pour dund léegi nag ñoom li leen di neex mu ngi nii dañuy tëj suñu liggéey di liggéey léegi xam na moo leen neex mobile ñëw toog sa buntu bureau waaye grand bi gaañ tey nii nga laal ko cent mille mu dem def ci rafetaay ma un mois mu jeex mu wut a jàlliwaat beneen bureau bu ñuy xaar ci loolu duñu gis nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñoom ñëpp ku ci falu fii mbëru làmb yee la fal politiciens yi fii ñaari parti yi rek lañ respecté li may wax booy boo buñ leen nii man leen ndawal ñetti ñi ko gën a xam ci àdduna géwél mbëru làmb ak dëmm politiciens yi ñaari pàcc yi rek lañu respecté ci Sénégal kilifa diine yi ak mbëru làmb yi ndax kuy campagne yi géejawaay yomb na dañ naan la fexeel ba convaincre Balla Gaye rek ba mu nangul la ba topp la boo jëmee parcelle ñu sant la ko ci Modou Lo pourtant foofu yëpp am na ay joueurs internationaux yu fay jouer yu ay Angleterre ak fu ne lu tax duñ la wax fexe ñooñ topp la ñooñ di fubal di fayee ko ay milliards nga soxla Sénégal nga ne ñooñu la kaa jox ki la ko mën a jox mooy mbërum làmb ji te làmb ko gën a ñàkk a respecté pour lan ñu war a ne di dund loolu ba kañ. beneen bi ci topp ñu koy wax ñi fi toog yëpp ku ci am pexe ku ci am solution ñu ngi ci ay tànkam sànq ñu ngi ciy waxtaan ak Kona maa ngi ciy waxtaan ak Agogo Bébé Saloum dafa am problème. fekk association bi mayuñu leen jàmm konaa di def fii sorti ond di def fii sorti ond lii mais ñoom période boobu pour ñu tëj suñu gémmiñ faaw ñu def benn geste si cas boobu gars yi nañu amoo leen li bu Bébé Saloum am problème ñoom ñëpp ñu ànd dem taxaw ci tribunal bi ne Bébé Saloum la ñuy taxaw nii ak nii ma ne yi comme ñoom ñi ngi def geste si Bébé Saloum nañ leen bàyyi ñu def geste quoi parce que nit am na noo koy toppee dañ ñëpp dix jours avant Tabaski ba tey Bébé Saloum nekkul ci prison bi mu ngi ci hôpital tëdd. dafa feebar gravement dafa sonn ñun na xaaruñu leen pour ñoom ñu ñëw taxawu ko wala lii dañoo bëgg association jeune lutteur ñi fi nekk yëpp ku yegg jottali ko sa morom. ñu pare pour def ci ay jéego xool luñ si mën ndax suñu mbokk la ci làmb la bokk te borom tur turam rek koy dimbale bu ñu xoolee ba turam fay si làmb mooy day maxe ci kaso bi. Bébé Diène suñu frère la si ñun la bokk nañu xool nu ñu ko taxawoo ñun loolu xam lan moo ñu tax a ci làmb mbër mbër mu ndaw jot àqam ak fam fa ñuy invité mbër mu mag bi jàpp ne kii am na xam-xam pour toog fii nii wax soxlaam nañ jàpp ne mbëri ndaw yi am nañ ñu am xam-xam bu plus ko kooku ba mun faa wax lu leen dul lu ñooñu waxul. imagine toi tey CNG ñu taxaw ñu xëy ne mbër bu vacciné wul ñëw présenté ne am nga lii doo bëree. ok association bu mag nekk fii nii nekk ci làmb ñu ne kenn du ci wax mais xam nga moo koy indi bu kuy sàngoo deru gaynde lañ. parce que ñoom ñëpp ñoo def fii vidéo woote vaccination bi arène nationale kan moo leen fa gis ah, ok moo tax bu seen CNG ne ñëpp ñoo vacciné wu wala kenn du bëri ñoom du ñu wax. ñoom du ñu wax est-ce que c'est forcé man damaa war a jël licence dagg ko ak sama xaalis ba pare ñu ne ma di nga vacciné wu ci force wala doo dugg ci stade bii nga bëri. léegi ku feebarul nag. léegi ku feebarul man mi dëkk Grand Yoff hôpital Cité woo nekk fa gën a rëy ñëpp dañ maa war a forcé ne arène nationale woo. médecin bi nekk arène nationale di vacciner nit ñi man dama koo xam dafa maa leer na médecin la te ma mën a dem CTO vacciné wu fa mu leer ma naññ mais lan moo tax ñu ñëw ba ci làmb ko par force football nekk Sénégal basket nekk Sénégal karaté nekk Sénégal lépp mais mbëru làmb yi ñoom ñoom lañ jàpp ñoom dañ koy wax waxee dañ xam-xam mbëru làmb la mën maa la ko doole bu ma la jàppee dama lay daal nee mbëru làmb loolooy xam-xamam léegi ñu ñëw ba ci làmb ne fii par force lii mooy am wala lii du am. bu ñu daaw bi corona ñëwee ñuy tëj làmb lañ njëkk a tëj ñu toog ba mu nekk ko woykat yi dem wàcc tali bi ñu jox leen 3 milliards ñu xeeb 3 milliards kon ne di mars ñu dool leen 2 muy 5 milliards. ñu ñëw ba ci làmb jox leen ñaata bu ma fàttewul. 10 millions 10 millions. ay promoteurs lañ 10. 10. mbëri mbëri 10 millions. la 8000 licences ak 10 millions ku nekk 375 lay am. ak boole ceeg toog un an compétiro calculé leen dix millions huit mille licenciés ku nekk da cee mën a am cinquante mille francs. ku nekk douze mille cinq cent lay am un an boo liggéeyul maanaam weer bu ne mille francs lañ la ci parce que ay mbëru lañ. teg ci nag dañ leen noppiloo ne dañ leen a jox noppi leen looloo ci gën a garaaw buñ la ko doon jox ba pare ñoom ñu noppi mais dañ leen noppiloo ñu ànd fii toog war a dem bureau Matar Ba. am lu ñu tënk boobu ci inigration arène nationale bi la xëy na Kona moom bu ñëwee sax damay bàyyi loolu moom mu développé ci. mais loolu lañ saraxee Kona te ay mbër yi mag ko saraxee ñoo ko yóbbu ba ci kilifa gi dóor ko ci kaw kilifa gi roccee ko ba ko ñu ree ñoo ko bëreetul am na tele yoo xam ne duñ ko jël interview te ay kilifa ñooy woote ci kaw ne bu leen introsé diw mu leer ñu naññ. mais ñun tamit ñu pare pour porter combat boobu wan leen ne ci làmb la nekk li muy wax ñun la koy waxal. bis bu jógee di wax loo xam ne pour boppam la ñu pare ci moom xam ne moom boppam lay waxal mais làmb lay xeexal bu ko làmb seetaan ñu ko ciy génnee mu def sept combats six victoire mu def sept combats six victoire ñu ne dañ koy génnee ci làmb benn défaite léegi lan lañ bëgg ku taxaw yor xalam xalamal leen yaay diw làmb sax da ko mañ ba boo ñëwee di wax dañ naan Matar Ba mooy ministre làmb ki ko wax nga ne ko foo ko teg mu ne man bi may takk jabar daa ñëwoon Matar Ba daa yegg waa làmb kii ne bi sama yaay gaañoo ñëw na kii ne bi may tudd sama doom daa ñëw ñoom foofu lañ ko teg ministre de. ok yow loolu sama xaritoo ak yow la bi may takk jabar da ngaa ñëw man ak yow la concerné mais kañ la làmb toll ci situation ñu sauvé ko. nekkuñu dak Kaolack di bëre di compétir chef de l'état drapeau chef de l'état xam nga mooy lan drapeau président Macky Sall nekk Kaolack di def tournée. munul sax jaar foofu noonu honoré mbër nii mu xam ne man mi ngeen di compétir yëg naa leen mu jaar fa bu dee benn dix minutes mu tourné dem ñibbi dëkk bu munoon doon daf fay dem. gudd ñu ngi jégalu ñëpp mais c'est juste ñu xam ne li ñuy wax nii nii nii nii suñuy rakk yu topp suñu ginnaaw moo tax ñu koy wax parce que tamit tey. Euh, maanaam mënuñu def ni VIP di def mais mënoon nañ toog rek jàpp suñu ñàmbur parce que yàlla dimbale nañu ci làmb toolatuñ fuñ promoteur ñëwee naan danga ma dugal sama journée dimbale nañ toolatuñ fu ñuy joxe ay billets pour mu nekk suñu avance yàlla dimbale nañu tamit fu mbër dem ci àdduna mun nañ fa dem mais xam nga la moo tax ñu wax dañoo jaar fi booy jaar ba pare guñ foofu noonu parce que ñun ñëpp ñaari defet dañuy dellu siwaat fekk siwaat booy làmb di la jafe promoteur yi di la wayee di loo naa la ndax mun nga dugg mun nga jënd 4 bolok ak mun nga jënd lii. da nga gis promoteur bu tëgg journée journée nekk 10 combats 20 est-ce que xam nga ne 19 mbër yi ndaw yi ñoo fay nga jox ma 3 bolok ma versé la 600000 nga jox ma 50000 avance 550000 mi ngi sa loxo bénéfice sama adversaire def noonu 1 million ngi foofu. nga ñëw waxaale ak mobile fay ko 4 millions jël 1 million jox avance di xaar yeneen booy versé si nga jox avance mobile nga joxe bi def sa poche. boole ko booy bu la ci desal 10 bee nga koy woo téléphone naan ko est-ce que xam ne journée bi ma la bëggoon dugal moo gën a baax booy bi di def pexe bu nekk pour indi la njëgu ñu dugal ko ci ñëpp interdire bi xaw na gudd mais c'est juste di wax ne li xew ci làmb nekk injustice moo bari. léegi nag lenn la ñuy demander di jubal direct ci président di ko wax Matar Ba duñ ko jéggi parce que moom mooy ministre des sports te ñun ay sportif lañ. di ko wutal di ko wax tamit ne moom solution la ñu soxla solution bi ñu soxla mooy ay xale yi ndaw ku ci nekk attan cent kilos ragaloo yàgg a xeex façon xeex bu nekk ñu ne demal toog nga some te yow li nga doon liggéey ci ngay dundal la say waajur man ma yeewu sama yaay tawat ñu jox ko ordonnance douze mille deux mille francs nekk sans poche mun naa def loo nit lu nekk te buñ ñu xaar ñu yegg foofu parce que judd nañ ba toll nii ñu toll kenn xamaluñu dara. bala ñu am lu ñu neex nag ñu weer ñu ñu weer ñu mooy ñu génn dugg ci lu ñu warul dugg après ñu taxaw nag naan waa lii la lii la lii doon li ministre bi doon wax dëgg la mbëri ñoo fi nekkoon di def lii ñoo fi nekkoon di def laa buggu ñoo yegg foofu nañ ñu wutal solution te li ñu waxoon it amuñu luñ ci arrière pare nañ pour ñoom lum ñu jaral lum leen jaral pour ñun ñu dem semence rek ñun jaral nañu ko pour ñu dem liggéey loolu moom del pare wuñ pour dellu si ginnaaw lum leen jaral pour ñu toog du liggéey nekk semence jaral nañu ko ñun pour ñu dem liggéey parce que tamit ñu toog defuñu dara ni amul njëriñ heure bii bu fekkoon làmb mu ngi am lii munul ne ku ci amul combat tey yaa ngi ànd ak sa waa écrit ñu am combat ku ci amul combat journée bii daw neex na la da nga koy seetaani li làmb di def ci réew mi dafa bëri nañ ñu jox cër. ñoom état bu ñu bëggee def yenn affaire yi sax làmb ju mag la ñuy tëggalu coow la coow li topp làmb ju nekk ci seen bopp. gis nga bi ñu fi nekkee naan corona amul ay Macky dem na tournée ba ñëw ak lii ak lii Gaston Mbengue daa tàllal journée yu mag yëpp gars yi ne neem kenn tàllatul li Macky Sall daal di mën ñëpp a ngi ci làmb ji mais comme dem nañ ba coow loolu fay na ñu bo ñu boleke làmb mais dama bugg xam ba xam mbërum làmb yi ñooy chômage yi wala lan la ba làmb war a taxaw lépp kon ne di dox. lan moo tax CNG taxaw ne ku vacciné wul doo bëri te gisuñu benn VIP bu gën défendre ñu. taxaw nag wax ko ba di ci boole suñuy supporters même supporters yi kuy dugg ci stade bi dag ñuy wan carnet bu wane ne vacciné si sinon doo dugg même site internet yi même lii même lii même là. làmb nag dafa bëri ñu mel ne mobile pour mu am solution làmb toog waxtaan rek lay laaj. toog waxtaanu làmb nag gis nga day laaj ñi mën di def ñi mënul xamuñu mënuñu làmb daa bari ñu mën leen mobile mënuñu te dañuy def. làmb daa bari ñu mel ne mobile dañoo war a déglu te dañuy wax lii mooy catu làmb mais gis nga bis bu ñu jógee pour toog ba woote ndaje ne dañoo war a toog ñëpp war a toog gis nga bu ñu toogee dinañ fekk mbër mu doon fayeku cent millions xale bu ndaw wax ñu xeeb ko. Hmm. bis bu ñu toogee làmb pour waxtaan ñu woote ko jotaay ba mel na mu war a mel mbër yi ndaw yi toog nii mbër mu ndaw dina wax ñu xeeb mbër mu mag ma daan génn ci télé yi chaque di wax. mais nag li ci kanam rawuli bët lenn rek laay wax nañ yokk gëm-gëm bi ndax ñun ñii ñëpp leer nañ ne buñ fi jógee ku ci nekk mbër mu mag mi nga nekkal dina la woo naan leen yéen lii yéen lii yéen laa mais ku ci nekk nanga xam ne li ñuy wax ni yow yaa koy dund moom dund ko boo ko xamee noonu rek du métti may jégalu ci kàddu yu guddi xam nga di nuyu champion yi fi toog yëpp di jox tamit suñu porte parole ndax moom it am na feneen ak feneen fu mu war a yóbbu waxtaan wi incha allah ñu bàyyi ko mu développé ci jërë ngeen jëf.